Monsieur le sous-préfet de la commune d'arrondissement de Malika, Monsieur le maire de la commune de Malika, Monsieur le commissaire de la commune d'arrondissement de Malika, Monsieur le commandant de la 13e compagnie des sapeurs-pompiers, Messieurs les représentants de la Sénélec et de, la CNO, Monsieur le coordinateur de la Sonaget, Monsieur le directeur du stade municipal de Malika, Monsieur l'infirmier chef de poste de Malika, Monsieur le coordonnateur départemental du département de Kermassar, de l'Abnaou Khadra Tidjanir, illustre Oustaz, Oustaz Monsieur le Khan, Pape Mahtar Silla, imam de la grande mosquée de la cité sirentelle, imam Babak Silla, honorable dignitaire et notable. Nous remercions, nous, nous aimerions vous adresser tout au début nos chaleureuses salutations, tout en vous témoignant toute notre gratitude. Vos sacrifices, et facilitation nous ont procuré un satisfait nuit en plus de nous faciliter la planification de la Khadra. Que l'ordinateur du Zikr, le Tout-Puissant, vous rétribue au centuple. Avant l'entame de cette réunion préparatoire, nous tenons à rappeler que la Khadra Juma est l'une des pratiques majeures de la, de la Tariqa Tidjane, du vénéré pôle caché de la sainteté, Sir Sidi Ahmad Tidjane Sherif ce rituel tidjan d'un poids inédit tire ses origines du livre saint, le Coran et de la sunna prophétique. En témoigne, citons l'interpellation du bon Dieu paru à la sourate le vendredi, qui stipule Ô vous qui croyez, ô vous qui avez cru, quand on vous appelle à la salade du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négocier. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Puis quand la salade est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah et invoquez Allah beaucoup afin que vous réussissiez. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs Ainsi, vu l'importance de cette séance de zikr en l'islam et dans la confrérie tidiane, mais aussi et surtout des marées humaines que ça draine ces dernières éditions à Yembel Ben Brak. Il est, tout, il est tout impérieux de le délocaliser pour cette cinquième année prévue le 24 février au stade municipal de Malika en présence de sept shérifs et plusieurs autorités religieuses venant de Tiawan. Tout comme de bien s'atteler aux normes organisationnelles requises pour une bonne réussite de cette festivité. Ces khadrats étaient instaurés par feu Serigne Al Amin que Dieu lagré sous la conduite d'Oustaz Fatassar... Nous en rappelons davantage à l'accompagnement du sous-préfet, du maire, du commissaire et du commandant de la 13e compagnie des sapeurs-pompiers pour le respect des mesures sécuritaires. L'appui continue et davantage accentué de la Sénélec, de la CNO ainsi que de la Sonagette nous sera utile respectivement pour l'approvisionnement en électricité et en eau, ainsi que pour le respect de la salubrité publique avant et après l'événement. Outre ces salutations, remerciements et appel à un soutien continu adressé à toute l'assistance. Nous vous souhaitons de fructueux échanges à l'issue de ce CLD. Je vous remercie. lay nuyu bu baax di la ziar am mbégte mu rëy dañu am sax notion bu yaatu ndax dañoo xam ne li ngay wax yëpp tabaarakallah ci ngëm nga ko teg mm-hmm. ak dëgg dëgg dëgg yéene ndax impliqué ñu ko seetal ñëpp ci wàllu li mu dëgmal mënoon nga présenté yow rek mais doo ci doo ci impliqué kenn mais ñoom ñëpp nga contacté leen ñu ànd ak yow ci liggéey bu rëy bi liggéey bi nag mooy électronique xadara bi nag lu gàtt rek lañ ci résumé mooy dañ représenté Serigne Fatal Sarr nga xam ne mooy coordinateur bi tey dafa am empêchement dem ci yeneen yitte waaye moo waroon sax ñëw teew waaye mu boole moom li ma àndal muy sa Omar sa Babacar Sylla sa Tamata ak Gass Diop sa Babacar Gueye wax ni nañu ñëw ci turam su ko defee ñu leeral la ñu tuuti rek ndax tey lu mu yàqoo ci àddina bi dafa nekk léegi système ñu gën a rëy ci mobiliser ay ci li mu loolu nag xam nga kaddu kaddu nitu yàlla rek la yàlla barkeel te yàlla dafa dogal moom mu amoon benn waxtu bu mu tabaxoon fële ak ñëw di ko ubbi comme ajjuma la tombeel nag ah ñu tànn ci ak gan ñi ginnaaw ba pare tàkk saan fekk leen nga xam nga sëriñ Abdou moom ñu jëm ci wàllu tariqa du ko tëf ñu nag malaanu xale su jumaa sëriñ bi nag daal di ñii daal li mu ci sentir xóot na lool ci wàllu liggéey mun daal ñu mën daal su ma sañoon dinañu lal mbalaanu cent vingt mètres ci fu sori. Hmm. ba tax ne ba mu ne ba mu te jox ma ci ndigal dinaa ko jéem. loolu moo waral ñu jàngal ko ba yóbbu ko ci stade ndax li yéene yi seen ak pas-pasu Fata ak ñu mu àndal ëpp na bayal ñu yóbbu ko stade ba mais comme sëriñ bi cautionné na ko validé na ko impliqué ci nag mboolem këru diine yi nga xam ne ñi tabaarakallahu dañuy yëngu ci tarixa bi ñëpp la ci dugal ñëpp ko bokk rawatina ci bi loolu amee nag xam nga seen chef ñaan si dafa wax ne lu yaaguwul yokkul rek jàll ak ah, kenn ku si nekk ci sa gox ñu mujj am ay section wax bu nekk di ko organiser dëkk bu ne di ko organiser région bu ne di ba yàlla indi ko nag tey ci nga xam ne ñoo dëkk Kër Massar naan ñoo benn benn Kër Massar te yéen ñee ne a ko yore di ko organiser yàlla dogal ñu borom pas-pas lu kawee kawe ñu ne lii daal ñoom daanaka ko def sax ci bayaat ñoom tam waaye nag to yaatu mu yóbbu jar ko ñu dem ba tey dañ koy indi ci stade xawoon nañu jaaxle nag ñu nekk ci kanam di ni dugal ngeen ci seen loxo jàpp ngeen ci ak yéene vraiment sama xel dal du événement boo xam du li ñuy am ci gàmm wala ñu koy am ci làmb wala ñu koy am ci conférence déedéet lii sëriñ ab def na bu leen donte dina mek lekk ndax gan ñuy jógee ci ay région di ñëw dina fanaan ak même bu fekkee wutoo ci xaalis bi duñ ci def xaalis bi par force gan ñi jóge bitim réew ay surafa ak ñoom ñu ñëw ndax gan boo invité ba pare bàyyi ko lépp day metti te ay sëriñ la ñu leen war a jox addiya daggal leen bii ñu ñëw nga loose leen tabaarakallaahu teral leen bu ñuy dem nga jox leen addiya loolu doo ci laaj dara gaa waaye ñu ko ci def loolu nag ku ko xam bu la ci ngeen doo ko bañ li mag ñi di wax nii du dem eh, bëgg a bëgg a añ taxumaa dem tool waaye bu ñu taajee loolu mooy li ma bëgg a junj ñi defuñu ko ko wut ji leen jamono bu ñu ko defee li nga xam ne mooy bu mag ca stade ba ca Pikine buñ ca jógee ay bor daf leen ciy topp ndax lii ma ne wax moo tax ndax comme ñu ngi def te duñu laaj parce que foofu ñu am ci bor loolu war ñu def ci te duñ ci laaj fokk ko tax dama dugg sama oto yóbbaale benn waaye gannaaw xadara bi pa bi passé comme Fatah moo ko organisé am ku ma ne ah Fatah saa tekki na ñu ko waat naa ne te ma xam na moo ñu bare bari nekk dara seen xel ndax léeg-léeg nit ku xamul dégg ko jàpp ni système la pour jéem a récolter dara mais de loolu waaye daal lu mu lu bis loolu mooy sa taxawaay bi presque ñun daal vraiment amuñu fay ndax lii nii nga xam nga ci taxawaay bu rafet pompier police monsieur le maire nga wax ndax sécurité bi man ni Ken ëpp leen cër imaam ëpp leen cër oustaz ëpp leen cër sëriñ sax ëpp leen cër ñeen la sëriñ Cheikh doon wax ne yéen la ñu wax almuraabituun ndax yéen a wékk seen seen bakkan ci sécurité xeet bi koo xam ne bu xeet bi naree dee yow jaral na la nga dee yow kooku kenn amul sa pay kon tey yéen mënuñu def lu dul jox leen seen cër jox leen seen gëdd topp ci seen gannaaw bootu ci yéen di leen dénkit kii nga xam ne mooy coordinateur bi nekk Malick Omar ndax bu nu gisoon ci moom doyee di wala ñàkk fayda wala muy dox doxin wu tilim mais loolu noonu duñ ci ànd ak moom lii tamit mag ñi ko concerné nañu ko bu ci kenn sikki sàkka nii amul ku ci d'accordul ci njabootu Seydi Hadji Malick ndax maratibu sunna bi sunna mooy lu yonent bi def mbaa mu deflu ko mbaa ñu def ko ci kanamam mu noppi ci comme dégg gunu benn kilifa bu jóg def annonce contre ko contre contrecarré ko dàq ko te kilifa taxaw na samp ko te kenn yëngalul samp bi loolu li muy tekki mooy mag ñëpp d'accord nañ ci kon jamono bu ñu ci gisoon tey lu jàdd sharia wala mu jàdd xaqiqa wala mu jàdd kër gi ñun dañuy dellu gannaaw waaye tabarakallah ñu ngi ciy am kóolu teg mat sëkk loolu rek laa amoon ci kàddu yi meex maa ngi jégalu gudd na nag waaye maa ngi jégalu asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi yëpp di nuyu yi fi toog yëpp waaye di nuyu sëñ Omar Ndoye mi nga xamante ni moom moo jiite section bi di Abnaa Xadrati Tijaan ci Malika Yëmbal waaye mu mel ni département bi yëpp moo aye mu département Kër Massar ñu woote nag woo njaboot gi yëpp fu ñu mën a nekk ci région bi waaye Sénégal waaye sax génn dëkk bi te am na gan yu bari yoo xamante ñu ne annoncé nekkuñu Sénégal di wax ni tey jii di alxamis dañu woote woon rek pour woote waxtaan bés bi nga xamante ni ñi ngi ko jàpp di aljuma 24 février ñu war ci amal li ñuy wax xadra euh, juma ci estade Malika mu nekk nag loo xamante ni lu bees la ci ñun ndax ñi ngi koy soog a amal ci estade bi en tout cas lu mel noonu nag bu amee muy laaj teewaayu mbooloo mu xaw am solo ñun dañuy faral di woote waxtaan ak service état yi nga xamante ni seen compétence jëm na ci lu mel noonu ñu waxtaane ko biñ ko waxtaanee nag xam nañu déjà bis bi lan la lan la wundu ban dayoo la am ak lan lañ ci xaar loolu bañ ko xamee ba noppi nag ci ñun wàllu administration ci lañu mën a joxe tontu wax ni lu ci nekk lan lañ ci fas yéene def ngir gunge leen ndax gunge kese la ndax organisation wax dëgg yàlla ñoom ñoo ko yore bu ko defee incha allah police noppi na ngir gunge leen ci élément yu doy sëkk ngir euh, julli jumaa bi ñu mun ko encadrer bu baax waaye itam xadara bi nga xamante ni moom woote moo waral woote bi ñu encadrer ko ba ci guddi gi ba mbooloo mi tasaaroo noonu itam noonu la ñuy encadrer circulation bi ak euh, le parking ak tout ce qui s'ensuit jëm ci wàllum sécurité incha allah daañu ko encadré noonu itam noonu la ñu ànd ak euh, sapeur yi pour que ñu mën a taxawu mbooloo mi ndax fu mbooloo tasee rek laaj na assistance boo xamante ni ñoom loolu mooy seen xam-xam ñu assister leen ba mu bañ a am benn rajajloo wala benn euh, buuxante wala lu ñu mel loo xamante ni mën na indi ay gàllankoor noonu itam noonu la waa santé yi ñëwee indi ambulance taxaw ànd ko yeen moo xam ci jumaa ja la moo xam ci stade bi ba kep ko xamante ni soxla na lu mel te ndax ñaanuñu ko yàlla ñu mën ko taxawu rek ci taxawu anam bu bu gën rafet waaye mën naa wax ni noonu itam lañu ko prévoir ak waa Sonaget ñu gën a xam ci UCG dañuy ànd ak yéen ci nettoyer place barab yi nga fa la daje laataa bi ci bis bi bi bis bi jàllee ko nettoyer.

alors yëpp danañ ci taxaw euh ak xeyna ñoo xamanteni ni mu ma li mu ma bu ko defee loolu yëpp waxtaane nañ ko inshallah te ku ci nekk muy chef de service joxe ne engagement ki ni dana fexe ba loolu mën a antu ci ndimbala yàlla ñu sant ci yàlla bu baax nag ndax daje bi am na solo ndax bu ñu ko defutoon xëy na xam-xam bi ñu am ci bés bi duñ ko ni amee loolu moo waral jataay bi waaye sant yàlla bi mu ñu mayee ñu am en tout cas possibilité euh, mën a jëmmal loolu yëpp ñu fi waxtaane waaye terewul coordination danay am coordination bu mat sëkk boo xamante ni ak directeur stade bi lay doon ak euh, euh, ndooy mi nga xamante ni moo nekk nii sama càmmoñ ak service yi nga xamante ni ñoom ñëpp ku ci nekk nag ku ci nekk fa nga féete alors am na loo ci war a def coordination boobu bu amee rek jàpp nañ ni. Euh, bés bi incha allah buñ ci àggee dana nekk bis boo xamante ni bis bu rafet lay doon gan ñi mën a ñëw ci jàmm alors def li ñuy def ci jàmm alors euh, mën a delluwaat ci jàmm ba am benn benn benn gàllankoor loolu la ñu ñaan yàlla yàlla may kàttan ba ñu mën ci àgg ak jàmm ba mën koo taxawee nii ñu ko tënke di sant bu baax kilifa gi euh, ci benn baraag ak kilifa yi ba ci xalifa bi yëpp Tiwaawan euh, sëñ Babacar Mansour mu nga xamante ni mooy euh, kilifa njaboot gi yëpp ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla may ko kàttan guddal fanam ba mu yàgg a taxawee njaboot gi waaye itam képp koo xamante ni yaa ngi ci xadara Cheikh Ahmed Tidiane Sharif alors euh, te war a fekkee bés bi ñoo ngi lay jox rendez-vous kon ci bis boobu di ko ànd ak kilifa yi imaam Masila ak imaam Silla ak ñëpp ñi fi nekk rek te ñëw ngir euh, mën a ànd ak ñun ci réunion bi loolu lañ bëggoon wax ci ci gàttal wax daal yéene bi daal mooy ànd koog yéen organisation bu jaar yoon boo xamante ni alors dañu ñu sawar at yi di ñëw di organiser di xadra bi fii ci Malika te du am benn benn gàllankoor sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam